wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri yi ñuy seetaan ak di ñu déglu bu ngeen gisee sunu toogaay bi xam ne. ñu ngi ci wàccaayu bés bu mag boobu nga xam ne Touba ca kanam ñoo koy amal at mu jot fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mee lay doon tubaa ca kanam ne Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ci boppam dimbale doomu aadama rek ko taxoon jóg kon nag kuréel gi bu duppee boppam Touba ca kanam am commission sociale ñu tànn bés boo xam ne dañ ciy fàttaliku ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw te ñu bàyyi seen lépp ñëw wuyu si woote bi nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul woote jigéen ñi nag di jàmbaar lool ca Touba ca kanam rawatina nag commission sociale. ci njiital soxna Bintu Mbakke mu yëkkati ay kàddoom nag jox ndo soxna Ndeye Marème mi ñu war a soññi seeni mbokki soxna yi. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen sant den siyaar bu baax a baax. Touba ca kanam ku ne xam na ne njabootu Serigne Touba ñoo ci jiitu. buñ nee njabootu Serigne Touba dañuy tàmbalee ci kër Soxna Faat Ja ba ci kër Soxna may Maymatu Saxiir ndax kenn ku ci ne sa xalifa bokk na ci kenn ku ne sa njaboot a ngi ci te ñoom ñëpp ñu bokk genn kàddu mooy ñoo bokk benn bëgg-bëgg muy liggéeyal Serigne Touba mooy Touba jëm ci kanam. mooy fa yéene liggéey ci dëkk bi ba nga xam ne bu ñu doogee ci dëkk bi boo taxawee ca buntu dëkk ba boo xoolee dafay mel ne yaa ngi màddina te loolu ci lañu nekk incha allah. képp kuy sëtub sëriñ Touba di njabootu sëriñ Touba kër sëriñ Modou Moustapha ba ci kër sëriñ Mourtala ñi ngi leen di soññ nag ñoom ñëpp ñi ngi soññee ci bis bi nga xam ne mooy social bi nga xam ne dañ ko war a def muy social Ramadan ci weeru koor wi le 18 kon ñi ngi ciy soññ ñëpp di ñaan suñu bokki soxna yi ñu dollee góorlu bu baax ndax lépp nag ñoo ma ndax bu ñu waxee rek lépp lu mën a doon rek muy lu jëm ci sëriñ Touba lu jëm ci liggéey ñoo ciy njëkk ñoo ciy mujj te ñoo ci man la ko tàmbalee woon ci jumaa yi Touba ji raay ba ba fii ñuy wax ak yéen ci Touba ci kanam bu dee téeméer juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yëpp jigéen ñi di ñaan itam képp koo xam ne nii yaa ngi ñëw a ah, ñu ne nga ñu sol weex ndax weex mooy li nga xamante ni mooy jàmm te loolu la ñu soxla weex lañ wax ak vert ku mën a am weex moo xam musóor gaay wert wala kol gaay wert baax na waaye itam ñuy ñaan kenn ku nekk la nga xam ne moom la ñuy soxla ku ne xam na social ku ne xam na dëkk bi muy dëkkub Serigne Touba yi ku ne xam na ni ñëpp dañoo daw bàyyi seen lépp gis nga ko bàyyi ay étage ñëw def néegum ñax lu ne am na fi kon ñuy li ñu soxla mooy fas na yéene koor gi la ñu daan def ñu def lu ko ëpp bu daan doon benn tey mu doon fukk kon nag ceeb suukar tàndarma ak yére ndax kenn ku ci nekk boo ubbee sa gaal ubbi sa armoire ma ngay fettax lu nekk nga ca te bu dee sama kalaas gi ñu bari jënduñu ca dara kon lépp sëriñ Tuubaa ko waral kon kenn ku ne la ngay waaje ca sagaal gaal na nga ca jël ngir jëmmi sëriñ Tuubaa indi ko Tuubaa ci kanam ngir ñu jox ko soxna yi nga xam ne mënuñoo dem marché di xotti mënuñoo uh, am lu baree bari bëgg nañ ko te mënuñu ko ak xale yi ndax gone itam ñu mat a uh, sóoraale lañ kon looloo la ñuy soññi nit ñi nu ñu fexe nag ba bala ñuy àgg ca bis ba na kenn ku nekk waaj xam ne Touba ci kanam moo xewle bisu Touba ci kanam la diaspora bi ñëpp la ñuy woo. Euh, di soññ ci bisu social bi nga xamante ni nii waa Touba ci kanam ñi ngi koy amal euh, le 18 mai tombeek euh, samedi njëkk ci koor gi bu ca ba ca topp ci mbaaru Daaru dos di ki soññ sama mbokk jigéen ñi ngi Touba ci kanam ñëpp rek mboolem quartier boo xamante ne nii yaa ngi ci biir Touba ñu ngi lay soññ ci bis bi fàttewuma nag waa diaspora bi ndax ku lim da ngay juum. Euh, te jigéeni diaspora yi kat ñu jàmbaare lañ ci liggéey social bi la maa ngi leen ciy soññ bu baax a baax a baax di woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ne nii yaa ngi ci Touba ci kanam nekk ci biir Touba ak 14 régions yi nga xamante ni ñu ngi senegal yëpp rek ñu ngi leen di woo ci bis bi ndax euh, socialkat lu am solo la ndax dimbali ki nga xamante ni yaa ko tane lu am solo la ma ci woo suñu mbokk soxna yi yëpp rek lépp lu waaye am xeebuñu dara. yéemuñu dara lu waaye am rek na nga ko indi rawatina nag sama mbokk soxna yi ci seen yére yi nga xamante ni ñi ngi ko denc seen batan yi may sàkku kenn ku nekk donte ñaari yére la yoo xamante ni nag yére yu baax lay doon waxuñu nga fekk loo xamante ni solotoo ko nga di ko joxe waaye loo xamante ni danga ko génne sa suufu yére mu nekk yére yu baax ñu dimbalee ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw te mënuñoo dem ca marché ba di xotti wala ñuy xotti seen doom ñuy ñaan ñu ñuy dugg ci bisimilah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilah rabil alamin mbokk yi bés baa ngi noonu di bésu social Ramadan commission sociale bu tubaa ca kanam di ko amal at yi yëpp ñuy dem ci ruq-ruqaan yi ci sancaan yi ci geneen tubaa gi wuute ak Touba gi ci biir goudron yi ak làmp yu leer yi dem ba foofu fekk leen fa wallaay ñu yeyoo ndimbal a ngi foofu mbokk yi kon nag ñun bu ñu sunu borom dimbalee ba fàggul ñu lépp na sunu xel dem ci ñooñu nga xam ne léppi jafe-jafe la ci ñoom looloo tax commission sociale di woote weeru kor wu jot wax naa leen sànq ne daaw ñetti téeméeri njaboot ak fanweer ak juróom-ñett dimbale nañ leen ci ceeb ci suukar ci tàndarma ci ñeenti xibla yépp nag ren ñu bugg mu gën a yaatu ceeb bi yokku suukar si yokku tàndarma ji yokk waaye dégg soxna yi nee nañ sax dañ cee bëgg a boolewaale ay ndima ay yére yoo xam ne boo demee ba yëkkati ay yére di ko mayee na nga bàyyi xel ne yére yooyu bu fekkee ne buñ la ko joxee doo ko sol jarul nga di ko joxe nit bu dee day maye day seet li mu gën a fonk mu yëkkati ko joxe ko te nañ bàyyi xel ne ñiñ koy jox kat mooy taalibe Serigne Bamba yi nga xam ne dañoo ñëw ba pare nekk ci ay jafe-jafe sancaan yi lépp jafe la mbokk yi xam ngeen ne am na ñoo xam ne ñu ngi am ay jafe-jafe ci wàllu wanag ay waañ waxaale wuñ ko ndox nag duñu ko dégg du ñu ko gis bu ñu feebaree duñu am fu ñu fajoo bu ñu bëggee jóg du ñu am yoon ñooñu nag la Touba ca kanam di fàttaliku waxtu wu nekk rawatina ci weeru koor kon nag incha allah weeru koor fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai di gaaw bu njëkk ba ca topp ñun ñëpp nañu ànd maase rawatina nag soxna yi soxna yi daal social seen social la. Touba kanam a ngi séntu ñëpp di woo ñëpp rawatina nag borom barke yi nga xam ne nii mën nañoo denc tonu ceeb mën nañoo denc tonu dugub mën nañoo denc tonu suukar nañu bàyyi xel ne am na ñoo xam ne bekk suukar rek daf leen di të. kon nag na ko ñëpp bàyyi xel social Ramadan ak commission sociale soxna yi laxasaayu ñoom na dañuy woote. woo seen mbokk soxna yi ci biir réew mi rawatina ña ca bitim réew te di jàmbaar lool ci liggéey bi kon nag yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn si